fii ci Touba ca quartier Baye Fall ga nekkee ci ginnaaw janatul mahwa sëriñ Abdou Lahad Diouf di jàngkatu xasida bu mag te ràññeeku lool ci biir réew meeg bitim réew amal na tegu xeer wu njëkk daara ju mag joo xam ne dañu ciy jàngale alxuraanul karim ak xasida rawatina ni ñuy defee njàngum yëkkati mu fës yéene daara ji tabax ko ba mu àgg ak lépp loo xam ne war na ànd ak moom ñu def ko ca muy daaray alxuraan joo xamante ni li ci war a dem ci koppar takku lool waaye nag Cheikh Abdoul Ahad Diouf fas yéene liggéey ba mu àgg liggéeyal ci Serigne Touba waaye jàppale ñi nga xam ne ñoom ñoo di ndaw ñi. ci alxames ji dëppoog le 3 juin 2021 ci lañ amal tegu xeeru njëkk wi ci teewaayu Serigne Amsatou Mbacke moom Cheikh Abdoul Ahad Mbacke. waaye délégation boo xam ne teewal nañ fa Serigne Mountakha Mbacke Bachir xalifu général des Mourides ay jàngatu xasida yu takku lool ak yeneeni kilifa. ay taalibe xarit ak wëllëre ñoom ñëpp ñu ñëw ànd ak Serigne Abdou Lahad Diouf liggéey bi nga xam ne moom la fas yéene taxawal fii ci Touba Mbacké kon mbokk yi ñu ànd ak yéen ci tegu xeeru njëkk ci daara ji nga xam ne moom la sëriñ Abdou Lahad jàngkat di fas yéene taxawal ci dëkk bu sell bi di tuuba ñu ci jàngale alxuraanul karim ak xasida وخطأ ذوي الإيمان كلهما بعي صلوا على المختار في الرسل من اقبلا صلاة قد لفظت بها نظما لوجهك يا من قد معها كسل عقب النزام والسعي كله كرما ولا ترد ليا دلي من العمل فاقبله مني فضل الله مناقشة وقد بغير أنا لي بأمل اشكر بفضلك صحي وارضى يا النبي يا من به سرت ساحتي ولم عميني أنت الكريم الذي أبقي تكرمه يا خير حاد هداني أفضل السبل كل بجاه رسول الله مالكنا عليه خير الصلاة وارفعك عن عبادي وارفع نسامي ساجدا وتكرمته ولا ترضنه يا مسلم الحلل دم النسام إلى سمع سوى بقدر ولا تردنه يا مسئب الخلل سوى أرجو في سر وفي علن بأق وجهك أقخ للرجاء عني يا رب كن لي وقل لي برضا وربي ومن تمس بجاي منطقى هني سل وسلم على المختار بالكرماء وبسرا بنظم أفضل الرسل آمين يا رب العالمين أما سليم بيثر في عن مزيات كيما تقود زيما ميل الرزيات Cheikh ab Lahad ginnaaw bi nu la sante gërëm la sagal gi nga nu sagal ngay sunu rakk di sunu jarbaat di sunu doom organiser lu mel nii jàmbur yëpp di la tiitaroo kon ñu ñi nga xamante ne ñooy sa mbokk rawatina ñun jërëjëf juuf yàlla na nga jekku sa yéene barke sëñ Tuubaa sëriñ Muntaxa yabal na ndaw boole kooku ñaan te ñoog moom ba ba nuy may nu fit may nu courage yokk ñu jom yokk ñu bëgg ca la Cheikh Abdoulaye nag amee volonté ba lépp lu mu defaat da koy xeeb ñoo ngi sant ñëpp ñoo ngi gërëm ñëpp. sëriñ Amsatou di wax ne sëriñ Abdou Lahad Diouf mi rek lañ bëgg a yëkkate ay kàddu yu jëm ci moom ak bokk yi soog a bàyyi sëriñ Moustapha sëriñ Mamor ak sëriñ Moustapha Kane ak bokk yi doon wax yëpp ñoo ngi leen di nuyu di nuyu jànkati xasida yi fi nekk yëpp. wax ne njàngum xasida njàngum xasida dafa am yitte ju laaj ndax yaakaar naa ne bu ñu delloo ci mag ñi ca daan jàngal ci kanam sëriñ bi am na am na bis boo xam ne dañuy jàngi xasida ci kanam sëriñ Tuubaa fitta soya xaw a xaw a bar Sëriñ Tuubaa ne Masamba neel fere yi nañ bàyyi ba ëllëg seytaane jaar na fi te booba fitta su yu xaw a bar képp la Sëriñ Abdou Lahad it waxoon na ne ku tiim xasida di ko jàng dangaa war a mel ne gone gu ci am man di gaynde tiim ko yor xàcc am fàddam yar ba ngay àndal ak tiitaange ja nee na noonu nga war a jox xasida yi kon njàngum xasida àndut ak am po àntakum fecc sabar daa am musique am jàng xasida am loo ci bëgg nag mën nga caa dem sëriñ Moustapha Salihu yàlla na yàlla gën a guddal fanam gën a dolli wéram bañ koy laaj ca Nations Unies waxoon na ne ba ko tubaab yi ne lu tax du ngeen naan sàngara mu ne café Touba da ko wuutu ci ñun mu ne ko lu tax du ngeen tox mu ne ko dañoo am guraak pite koolaa mu ne ko lu tax du ngeen déglu musique mu ne ko dañoo am ay xasida kon lu ci nekk daa am lu ko lu ko wotti ci doomu aadama te am po daa gaaw a ci ab xol te bu fa duggee da fa def bànneex saytaane day daal di am accès ci dugg ci biir xol ba yàq la nga doon def xasida dëgg boo ko dee jàng te di ko teewlu yow ci sa jëmmi bopp da ngay yéeg di jëm ci yàlla ndax yuusilu xatti man ahabba lil ila bi xayri xalwatin wa yakfi kulla la xasida nag ba laa mën a yéeg a jëm ci yàlla day fekk na sa xol bi nekk ci yàlla ba noppi mu mën a jël xol bi waaye du yóbbu jëmm ji xol bi lay yéeg a jëme ko ci yàlla xol bi nag bu ci àdduna génnul kenn mënu koo yéeg a jëme ci yàlla moo tax xasida dafa am wàccuwaay bu ñuy jaawale it wërsëg ak barke njàngum xasida mi wërsëg man na cee am bu fekkee moom nga cay wut waaye la cay def barke nag day fekk kooku di ci wut barke yow miy jàng ci wërsëg tax lay jàng Sëriñ Tuubaa layaloon na la bu yàgg fa kullu man ahabba nii aw maala ilayya farsuquhu dan kon jeex na yow mi nga xam ne njàngum xasida mi weccat képp la ci yóbbu Sëriñ nee na danaa la jox baas yu xumb ak gaa yu am xaalis te nangu koo joxe danaa la siiwal nga xew lool waaye nag bul wut barke ci man waaye bu fekkee ne nag barkee a tax di jàng danaa la boole ak teraangay àdduna ak joj booy faatu rek malaayka yi ñoo lay loxo xasida yi ànd ak yow isa katabtu ihtaza arsal baaxi wa sabbahat malaayku tibaax koo xam ne bu toogee di bind malaayka yi dañuy sàbbaal aras di yëngutu wóor na la loolu bokkut ak nga toog ci tànt bii nit ñiy fitasu boobaa malaayka yi moom dutuñu dutuñu sàbbaal ndax malaaka ak doomu aadama sens contraire la ñuy kon loolu ab soññale ci njàng mi sëriñ Abdou Lahad Diouf mi nag damay gis ne ki ñu njëkk génn ci jànkat yi la moog sëriñ Abdoulaye Seck seen génération ña ca topp mooy sëñ Xaadim Géey ak sëñ Mara ña ca toppaat ñëwaat te yàlla tellement booleeg ñoom ñu doon ay tuur tànk ma jaxasoog ñoom lool di xam ci ñoom ak sell ak baax xam ci ñoom it ak bëggante njàngum xasida saa yu juree concurrence moo terrain arène football ba ñooyam jàngkati xasida duñu am ay ay concurrence ñee ñooy kuréelub diw ñee ñooy kuréelub diw saa yu ci duggee rek seytaane am na ci yoon ci sëñ Tuubaa génn na ci jàngkatu xasida bi daa war a mën a fanaani kër Mara Seck muy sëñ laa Diouf am faw turandoo xaadim ngay fanaani kër Ablaye Seck am faw turandoo ngeen def seen magi jàngkat yi xaside yi ñuy seen royukaay looloo tax sëriñ saalihu ba mu leen di joxe pàkk mawaahibu la ko tudde jox leen ko yéen ñëpp ngeen bokk fa ne mawaahibu naafi kon yaakaar naa loolu war na cee man a jàng lu bari ci mbooleem kuy jàng xasida sëriñ Amsatu mii ñëw nag li ko tax a ñëw moo di jëmmi sëriñ Abdul Ahad euh, dama ciy faral di wax man Daaru Salaam laa yaakaar sëñ moo Modou Roqee moomay samay sama sëriñ moom laa ñaan ba ma sëñ Tuubaa di ràmm na ma war xar xar kanamam xemee mu ma beneen moo ma tërbiya waaye li ma boolee ak sëriñam Amsatu mooy pas-pas euh, sëti sëñ Tuubaa yi bari na waaye dama koo wax ne ko sëriñ Abdou Lahad sa jur bu baaxoon noonu na say wi de ba ko Moustapha sallallahu alayhi wa sallam takkee ba yanu ko mënu ko sëpp ci àll bi kenn naan ko am kàttanu yanu say wi amul waaye nag soo bëggee ñu xam ne ci sa yoo nga bokk matt nga nga ci njëkk a jàpp téye ko lang-lang moom ku la xam-xam laak matt gi ku lay séen seen laak moom ndax matt gi mun ta tàggoog say wa su yàggee say wépp bu ñëwee ci kër gi su ma jëlee sama matt andi ci kër gi abdoulahar jël ak mattam andi ci kër gi euh, sëñ maara jëlu mattam andi ci kër gi bu yàggee say wi dana daje ci kër gi ca bu boobaa kenn du mën na génn nga ci say wa ma ne ko kon naa téye ci yow ngir ngay sama matt ci biir yoo fii matt goo xam ne nag du saxaar bu ko borom bëggee def ci taal bi tàkk-tàkk lu neex la koy tàkkal te doo ànd ak saxaar matt kooku yaakaar na ne moom la kuy togg bëgg sa Amsatu diirub ma xam ko ak léegi ci liggéeyub sëriñ Tuubaa rek laa ko ma sa xam muy faral di wax ñaari baat yoo xam ne nañ ko def yóbbal yóbbal day wax ne du ma dagu ak xilaafa du ma dagu ak nguur xilaafa ak nguur du ma ci dagu dara ndax bi ci njëkk mooy xilaafa dugg na sama kër baay ma génn ko dem Mauritanie mu dugg sama kër sëriñ mu wàcce ma ma dem léegi sëñ Abdou Lahad baayam doon na xalif sëriñ tubaa nee na du joxoñ benn pàkk bu sëñ Abdou ne maa ko may am satu wala mbub mu xotti ne maa xottil am satu wala oto bu ma may te noonu ma ko waate ni la ko doomam yëpp waate noonu ma ko waate ni la ko doomam yëpp waate sëriñ Abdou Lahad daf daa wax ne bi muy liggéeyal sëriñ Touba bu yendoo dajale ba ngoon jot ay sot ñu àndoon ak sëñ Abdou Lahad bu loo xam ne ëpp na tey day jëm suba danaan xaaral ma séddaleel ko sëñ Touba ndax xaw ma danaa fanaanam déet na ko tib ne yetal ma sëriñ Abdou Khadir yetal ma sëriñ Saalihu yetal ma Cheikh Mouhamadou Mourtala yetal ma sëriñ Sohaybu mu des mu ne tib yetal ma soxna moomi yetal ma soxna may daal di ko ne ñooñoo fi doomi sëñ Touba séddaleel naa sëñ Touba alalam jox koy doomam miraas na sëñ tubaa ay yoon yooni yoon ci ak xilaafam fëgg jaay sax bu ma saa ñëw da koy séddale waat njabootu sëñ tubaa gi ne du ma fanaanoo alaali alali sëñ Touba te xaw ma danaa fanaanam dee bu ma saa ci kër sëñ Touba gi mu defar muy kër gu mag moom bu ngoonee buy gont day taxaw ci bunt ba woo Mbàkke Mbay wala Baara Njaay na ko jottali maa sa satalagee maa ko moom ëmb bee def tàngal maa ko moom kuy génn ci kër goo xam ne xamoo da nga fa delluwaatam de doo fa bàyyi sa alal muy fanaan kooku mooy Cheikh Abdoul jàmbaar la daa waxoon ne ba muy dafa ne damaa gontu ngont mu guddi te bëgg dab ñax yoon loolu nuñ koy déggee mooy Cheikh Mahamadul Fadal ak Cheikh Mahamadul Moustapha Cheikh Mahamadul Lamine ak Cheikh Mahamadul Basir mat nañ ko way jur ñoo ko mag te mat nañ ko way jur mu ne ñii ne ci tool bi nag ñoo xëyoon te man dama leen a bëgg a dab moo tax mu ne damaa gontu ngont mu guddi te bëgg a dab ña xëyoon kon noppalu ma daal di wax ne nag su la nopp lu warul nag kuy doxee doxinu ku dem ma dem ku demul ma dem boo ko sa gis mbooloo ci sa ginnaaw seeblaat loolu doon dem ma dem ku demul ma dem daal di wax ne li feeg maa fii nekk sëñ Tuubaa laa fii nekkal te liggéeyu sëñ Tuubaa bi sama bakkan laa ci gar moo tax fu ñu tudd sëñ Mourou Moustapha tudd sëñ Fallou tudd Cheikh Abdoul Ahad kon dabe na kon sëñ Abdoul Ahad dabe na loolu la sëriñ Amsatu doon ci moom mu dem ci sëriñ Amsatu Cheikh Abdoul Ahad fab ko na ko maay sa way jur te ngërëmul sëñ tubaa li ngay wut am nga ko ci man du ma ko neel yaakaar naa ne sëñ Abdou Dieng Balla Fally doomi sëñ Balla Fally Dieng sëñ Balla Fally Dieng njëkk a fàkku ci yoonu murit jox ko sëñ Touba moom la sëñ Abdou Lahad wax na ko demal na am satu mais sama doom am satul xadim nee ko ngërëmul sëñ tubaa am na ko ci Touba Belel sëriñ am satu sëñ ab Abdou Dieng Balla Fally ñëw wax ko ko sëñ am satu wàcc ko fa ñëw ci sëñ Abdou sëñ na ko lu la tax a jóg xanaa li la Balla Fally wax a tax mu ne ko maa ko wax de daal di ko ne nag ndagam am nga ngërëmul sëñ Tuubaa nag damaa bëgg nga ñëw liggéeyi ko dama lay jox sëñ Saliou lu ma am ci moom jox naa la ko lu ma amoon ci yow may naa ko sëñ Saliou mu jaar ci daara yi sëriñ Saliou tarbiya wu ba sëriñ Saliou waxal ko boppam ne ko xamal naa sama bopp ne da sama njiglaay kon def naa la ngay généralu daara yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi nuyu waa adduna yëpp di di jiital ci nuyoo bi suñu soppe di suñu sëriñ di suñu yaakaar tey ëllëg Cheikh Mouhamadul Mountakha di ko ñaanal mu yàgg fi ak mboolem njabootu Sëriñ Tuubaa gépp ak mboolem njabootu maam di nuyu di siyaare suñu wasila suñu buntu ci kër Sëriñ Tuubaa muy sëñ Thierno Ahmadou Nourou Diop di siyaare sëñ Mourtada Diop mi ko fi teewal di nuyu ñu fi teew ñëpp waaye ñuy sargal suñu sëriñ di suñu soppe di suñu wëlëre muy Seydina Hamsatu moom Cheikh Abdoul Ahad Mbacké mii teew di siyaare mbokkam yu baax yi fi fekk yëpp waaye ñuy siyaare itam si Moustapha Mouhamad Mbacké mii nga xam ne mooy ndaw sëriñ Mountakha ci jataay bi sëriñ bi lii ñu def nii li mu ci jublu mooy ñun dañ doon yëngu yi ba ñuy ndaw ba léegi fekk ci sunuy mag ak sunuy waajur ñu dema a dem a dem ba am ak njaboot gu aw sunuy tànk di yëkkati xasida yi yàlla dogal njàng mi am fu tolloon ñu am xalaatu bëgg mu weesu fi tolloon te loolu mooy fas yéene mu gën a sell gën a leer gën a tegu ci yoon ndax jànkatu xasida damaa wax ne war naa bàyyi xel tàggat boppam ba nga xam ne Sëñ Tuubaa dellu si mu mën a toog ci kanamam yëkkati xasida yi loolu ñu am ci bëgg-bëgg am ci xalaat am ci itam mébét moo waral ñu doon sàkku am daara bi nu amee daara ji yàlla dogal daje nañ fi maam ñi may àndal ci njàngum xasida ci njiital sëñ Saliou Guèye mii di fi def ay répétition ñu dema dema dema nag ba xalaat ne war nañ ko def centre formation Euh, maa ngi koy jébul ci kàddu yi may bëgg a ci dafa am fu ma mas a seetaan koo xam ne ab tëggkat la woon mag la génn na àdduna yàlla ko yàlla yërëm am na ñoo xam ne danañ xam ki may wax laataa muy génn àdduna fexe na ba tàggat na ay tëggkat yu bari ak ay fettkat yu bari boo demee sàkkoon sax nag bu fekk ñoo xam ne moo leen jàngal ni ñuy tëggee kooku nag ci moom laa def référence ni kon man gannaaw nit day dund te yàlla rek moo xam fan lay maa ngi ñaan bala maa génn àdduna suñ borom dimbali ma ba ma bàyyi fi loo xamante ne bii ne loola day des am coordination loolu moo waral ñu taxawal daal ji biñ ko taxawalee itam wut nañ lay lay wiñ wut mooy dërëm ak ñaar dërëm yi ñu Sëñ Tuubaa di jox bu ñuy jàng moom lañ dajale ba miire ko def fi néeg bii def fi mbaar mi def fi fi wàllam yëpp te laaj ma kenn benn dërëm taxaw laaj kenn benn dërëm ci ndimbalul yàlla rek ci laa nekkee fii ba agsi fii ma agsi lii nu def na day aada ñu tegu xeer jégal ko say kilifa jégal ko say mbokk mooy bisu tey bii kon na ñëpp xam ne ñun ñu ngi tàllal ndaw loxo ndaw ñi ndaw ñi ndaw ñi nga xam ne dañoo nekk ci xaside yi nañ xam ne xaside yi lu waay di wut rek lu mu a doon moo xam àdduna moo xam alaaxira ni ko sëñ Fallou waxee léegi ci xaside yi la gën a gaawe ñun nag am ci xalaat xalaat rek nag lañ am ak bëgg waaye yéen ñu mën a jàppale yéen ñu mën a dimbali ci xalaat bi kon maa ngi woo ndaw yi Touba di woo ndaw àdduna yëpp di woo ndaw senegal Sénégal yëpp ci ñëw leen ñu xalaat nan la ñuy def ñu ñii yor micro di jàng ñu ñuy aw nan la ñuy def ba tànn yi nga xam ne bokk ci sànni ko fële indi ni ko sëñ Touba bëggee te war naa yomb ndax boo xoolee ñi nga xam ne ñu ngi kuréel léegi daal yi nga daan dégg ci ay bàyyi moo sàmp ak bàyyi seex look yooyu yëpp ñoom ñi ngi koy jàng te mi ngi tegu ci yoon te mu ngi leer te mi ngi mel ni mu war a mel te ñun ñii am nañ xalaat boobu kon ñun kenn waruñu jiitu ci loolu li waral loolu mooy am na am na ñu ma mos invité ma ñëw ak kuréel la du ma tudd tur ñu jàngaloo ma njàng mu bari enregistré bi ma noppee am na ci loo xam ne dañ ne lii ñun duñ ko teg dañ koy denc di ko répété ndax dañ ko bëgg a jàng war nañoo am ñu itam suñu ambition bopp suñu pas-pasu bopp ñun tamit gannaaw ñeneen a ngi jël suñu jàng di ko denc di ko répété di ko jàng te duñ ca feeñ sax ñun kon ñun war nañoo xam na suñu bopp waa xam lii ñu def lu mu doon te kenn ku ci ne xasida yi defal na la teraanga boo xam ne bii ne la la des ci àdduna mooy delloo jukkal xasida yi kon woote bi ci gàttal na ñëpp xam ne lii a tax ma woote jubluwaay bi itam lii rek la def nag ak dox dafa xaw jafe boo jógee di dox kenn ku ne am na muy gisee lu ne ngay dégg lu ne ngay gis lu ne ngay lu ne la nit ñi xalaat da nga dégg koo xam ne daan ah day dajale lu mu tabaxee këram ñi naan day dóor mart waaye man mart bi fii laa bëgg dóor ci daara ji rek ci daara ji lay doon incha allah maa ngi woon ndaw ñi di woo góor di woo jigéen di mag di woo ñëpp di gërëm ñëpp di jégalu kàddu rek laa bëggoon mu jàll na ñëpp xam ne daal objectif bi ambition bi ma am mooy taxawal centre formation xasaayid jafewul nag su ma amee ñu ma ci gunge tuuti rek xalaat yaa ngi sant nag seen satu suñ sant bot ndax moom gàttal nañu bu baax a baax ba nu accès rek fa saasa la nu gàttal ñu ngi koy gërëm mbàkke di la xamal lii moom yàllaa ko teg ci sa loxo ndax man xuddaam moom sëñ Fallou si la wax bu yàgg laa ci bokkoon ba nga ko njëkkee woote ci kër sëñ Tuubaa ga ca ñi ca ñi njëkk wuy si laa bokk te ba léegi génnoo ci kon lii yàlla moo ko teg sa loxo noo koy ànd ci njalbee gi ñoo koy ànd ci digg bi ñoo koy ànd ci jeexantal ñu ngi lay ñaan nga fekke lépp bañ ñun ñëpp ñu bokk fi dajawaat ubbi ko nii ñu tege xeer bi ñun ñëpp ñu fekke kenn bañ man ki ngeen baal ma àq wa salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ci turu Cheikh Mouhamadul di teg nuyoo bi ci loxol Serigne Abdoul Ahad Abdoul moom mi nga xamee ne moo waral jataay bi kon Cheikh Abdou Lahad Diouf sëriñ Mountakha mi ngi lay nuyu bu baax a baax te di am mbégte ak ak yëg ak yitte ci lii nga bëgg a taxawal nii nga tudde baat bi noonu dama ko tudde biig centre de formation nu la ko waxe ne da ko bëgg a taxawal mu ne nag loolu yittee ma ndax moom ab liggéeyam mooy lu jëm ci jàng ak xam ak defare ak defaru kon boo taxawalee loo xam ne dafa jëm ci yooyu nee na kon dafa mel ne danga ko jàppale ci ab liggéeyam ba tax na mu fas yéene koo ànd ak yow te loolu nga xam ne def na ko ci nee na ab tàmbali la waaye yéeneem ëpp na loolu nee na it mu ngi lay ñaanal nga mottali ko ci jàmm ba li nga ci yéene lépp nga mën koo amee ni nga ko yéenee ba amee ko sax nu kawe su njort kon kàddu yooyu mooy kàddu yi nga xam ne sëriñ bi dama koo sawoon ngir ma war koo jot li ci yow waaye li ci des lépp maa ngi koy teg ci loxol sëriñ Hamsatu jëf ñu ngi sant tey gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullah. di nuyu sëñ Abdou Lahad Diouf mi nga xam ne moo taxawal lii. def ko fii ci uh, barab bi nga xam ne barab bu maam Cheikh Ibrahima Fall la looy defal sëñ Tuubaa nag te defee ko ci kër Cheikh moom da nga cee rafet njort te xam ne dana gaaw dana ak incha allah di sant itam sëñ Muntaxa bu baax a baax dañuy wax huitième xalif waaye man troisième xalif laay wax ndax mooy ñetteelu xalifa sëñ Tuubaa mu niroog nag troisième xalifa bi jàlloon ci doomi sëñ Tuubaa aw aw aw melo ak pas-pas ak ub ci defare ak ñëpp déggal ko xam-xam ak xasida ñor ko mu koy jàng di ko jàngal di ko bind di kon ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi loolu te wér sëñ Abdou nag li nga taxawal day lu am njooy ndax dañuy jàngal te jàngale ngir jàngal jàngale ëpp yow waaye nag kuréel muñ kat bëri du ko am métier yëpp jàngale alxuraan moo ci gën métier yëpp jàngale alxuraan dund yëpp dund saw ñàq moo ci gën moo xam mbay la moo xam li ngay def mu di tëyër ni day métier yemoo ci njàngum xasida rek waaye danga nga cee sa méccam bopp muy tëyër li sëñ Fall Gass wax sànq nag <coughs> ci barke ak wërsëg ci laay dikk rek bari ñoo xam dañuy sàkk barke bari ñoo xam dañuy sàkk wërsëg muy ñaar yu niroo te bokkuñu wërsëg day defub jal nga mën koo làmb daj ko man koo xool gis ko soo sàkk soo soxlaa sàkk ca waaye benn mu jiit la wala nga jiitu ko benn nga dem bàyyi ko wala bala ngaa dee mu dem bàyyi la fi barke nag doo ko làmb daj ko doo ko xool gis ko mën ngaa tëdd ba guddi soxla su rëy dëkkal la nga làmb sa bos te jóg dërëm waaye bala ngaa xëy soxla sa faj loolu barke ko def te boo demee ba dee des la daan pàcc digg ba bii la jiitu ca bàmmeel bi see ci sa njaboot kon sañ la daa loolu ngay fàggu yàlla la ko yàlla yombalal ak mbooloo fi day ñëpp barke lii dafa jot defar xale yi defar ndaw ñi sëñ Saaliu bokk na ci liggéey mooy defar ndaw ñi te ndaw mooy nekk magu ëllëg kon war na leen defar defar leen ci njub defar leen ci yar defar leen ci teggin defar leen ci nangoo liggéey te bàyyi dóor ay mar bari na léegi nag lépp la am am na sëñ suy dóori mar am na jànkati xas yi dóori mar am na ñeen ñu business ci garab yeeg yi fi pajum wala meeg yëpp gaa yaa ngi ci dóori mar waaye nag lépp nag daa mat loo loo jàng ba mën ko mën nga caa jariñ mën nga caa jariñe waaye loo jàngul mënoo ko nag moom mën nga caa lore kon nag yéen ñi jàng xasida xasida daa foor loo ndax day kàddu ko sëñ Tuubaa gannaaw alxuraan dara doon koo foor ak addis kooku yàlla sëb dën nag te nit ñi yëpp fi mu toll yàlla dimbali ñu wëlbati ko bëgg alxuraan bëgg xasida ndax boo gisee xale yi tuuti yi mokkal alxuraan ak xale yi tuuti yi nga xam dañuy mokkal xasida xasida yi gënoon a jafe ñu koy mokkal kon xam ne am na sëñ tubaab loolu di ko sotti ci ñoom loolu nag ku leen ci dimbale ngir loola mën a dugg ci seen xol mën a dugg ci seen dënn yaa ngi liggéey sëñ tubaab dëgg dëgg liggéey sëñ tubaab nag ku ko liggéey ko war a sell kon nag lii nga sos te sëñ tubaab rek tax yàlla ci yàlla defal ndam yàlla na yegg ba nga sosaat yeneen tey yëf yi noonu rek la sëñ Sall deno sëñ Tuubaa daal dafa waxoon ni da am ko doon laaj ne waaw sa daara yu bari ngay tabax la jul mu ne ko sëñ Tuubaa def ni deel may yàggale may tàmbale mu yàggale kon nañu tàmbale bu ko defee sëñ bi yàggale kon maa ngi sant bokki Baay Faal di sant bokki fi tey yëpp di sant góor di sant jigéen di xam di mbégte la ci noonu fi nga ko defee ak ki nga ko defal ak ki nga ko tudde yëpp am na solo ndax sëñ Tuubaa nga ko def wala ci njabootam sëñ Abdou ci pàkku Cheikh Ibrahima Fall kon dañuy wax ni lépp sëñ bi la yàlla na la sëñ bi gàttalu teeru la gunge la yaag say bokk ak say xarit ak tëdd bi wasalaamaaleykum min zil jalaali bi waqaadana min xururin lil fadilati wa huwa al malaazu lana dunyan wa aaxiratan fi kulli xaatbin huna aw fi xaddin yaati munjin mujirun saafi وناصر وصار عنا يكوف البالا يا والمصيبات فلا أفوض أمرها هنا وغدا لغيره بعد ربي ذي البريات يا أكرم الخلق إني قادم لك ما أحيا بمدح وزاد bin bil qasidaati walam urid zaratan dunya lati iqtatafat yadda zuhairin min ma yadda zuhairin bima asna min abyati بل امتدحتك يا مولاي مبتغيا منك رضا بعدما تمحو خطيئات عليك والآل والأصحاب خير سلام بسلام بها أحوي المزيات سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين